këram la moo ko moom waaw te it fa tabarakallahu ndigal bu wér la ci joxe boole nu ko nun ñëpp li mu waxoon ni ku ma feeñal yaa ma tooñ te ku ma tooñ ma waaw ku ma yaa ma tooñ te ku ma tooñ feeñal ma waaw boppam doy na ko kilifaam doy ko ndigalam doy ko ba bëggul ku ko xam moo tax ku ko feeñal yaa ko tooñ waaye ku ko tooñ feeñal ko ndax boo ko tooñee mu jëfandikoo waaw te bu jëfandikoo feeñ dinañu xam ni kii moomu waaw uh-huh. nee na yoor yooru alxames Alxaaj Malik wooma ni ma mbir mi seeni boroom d'accord nañu ci ma jox la ko joxuma la ko dama ko seede bu ma ko doon joxe jox ko mag ñi ànd ak man ba ma tolluwul nen waaw waaye seeni borom nag nee ñu yaa leen ci gënal joxuma la ko nag dama ko seede ma di la yëgal ni sa njaambur gii nag jeex na bëccëgu tey nee na ma ni ko ci chart kenn bañ ma xam ba ba ma fiy jóge mu ni ko bu yombee di ko am waaw bu yombee di ko am waxin la ah mooy yombul nag waaw mooy yombul nag waaw